Eh, tey diñ fi ñëwoon ñu convoqué leen di leen remercier seen présence parce que lu warale suñu secrétaire général Oumar Ba bi toog depuis un certain temps dañuy constaté ni que direction bi daf ko sonnal ci ay intimidation toujours ñu convoqué ko ay conseil de de discipline loo xam ne musuta am parce que lan la dafa jiite benn syndicat bu tudd SATES suñu demee négociation am nañu suñu point de vue bu ñu d'accordul am nañ si droit requête la ñu mën a def à la direction du générale du travail wala à l'inspection régionale du travail mais ñoom lu ñu gis si loolu duñu naan noonu ñi du ñu ay syndicaliste ak activi ay activiste la ñu moo bu leen neexee ñoo xam mais ñun bu ñu toogee table de négociation di négocier lu ñu gisul du ñu naan lii dañu koy dénoncer fii tey yoon lu mu ñu may loolu la ñu def mooy dem recours mais nag bi ñëwee léegi si euh, convocation bi ñun délégué yi ñu ngi ni cinq la ñu bi ñu duggee saal ñu ni réglementation yi benn kenn la wax mooy dugg ñu ni ko noonu ñun ñëpp di ñëw accompagner suñu secrétaire général ñu au huissier pour mu constater ñun ñëpp ñu rocceeku ñu génn loolu jaru ko ñëw ñu fi pour créer ay incident mais am nañ droit accompagner suñu délégué léegi nag bi ñu génne moom mu toog foofu bi mu génne léegi mu communiqué ñu ni ko huit jours de mise à pied de huit jours lañ ko defal bale pas defaloon na ko mise à jour de mi pied amul de mise à jour de huit pieds sax trois mois ñu dem inspection du travail ñu contesté ko ñu wàññi ko bi ba encore revenir nañ ci loolu dañu leen di xamal dinañ delluwaat inspection du travail parce que du yoon secretaire généralu syndicat la te syndicat bi du satesu SDE rek la yor CO e mu ci moom ak waa teg mu ci moom ak yeneen yeneen ba mu mat SDE bële mu ngi ci moom donc yooyu yëpp la boole yilif leen donc lu ñu koy def ni la ñu ne ko du yoon te duñ ko mës a nangu lan moo indi problème bi nag négociation annuelle la ñu jógee bi ñu jógee négociation annuelle direction générale dañoo teg suñu plateforme de 15 points parti naa ko sax wax ci français bi dañoo teg euh, benn plateforme de 15 points direction générale bi mu ñëwee point yëpp mu teg ko de côté mu indi ay points mooy cotation des post bi digitalisation bi ak IPM bi moom ci loolu la ñuy discuter en ñu ne ko non ñu di ñu discuter suñu point ñun dinañ ko si dugal bi ñu commencé si cotation post bi ñu xool lii leerul ñu ni ko jox ñu document yi ñu xool ko parce que euh, benn grille boo xam ne da doon dem ba dix échelons ñu yokk ba quinze échelons bëgg a tere trois quarts du personnel pour ñuy dem agent de maîtrise ñuy progresser ñu ne loolu mënut nekk loolu baaxul ci personnel bi boobu nag la ñu toog nee na non non kii rek jàppoo rek la ñu mën a def ñu xool bu ñu décider noonu bu ñu décider négociation fermée de trois jours bi ñu bañee IPM kazalika bi ñu ñëwee indi assureur bi indi IP PCA IPM ñu defal ñu présentation ñu ni loolu doyuñu bi CA IPM bi woote ñu gis ñoom lu ñu proposé woon ak CA bi lu mu proposé bokkul ndax fële dafa am ay plafond te di amul plafond ñu ne ko lii leerul jox leen ñu dossiers yi documents yi ñu xool ko étudier ko nanguwuñu bi ñu génnee yenn syndicats yi signé ñun signé wuñu ñu ak UTUS ñaari syndicat ñu def suñu requête au niveau de la DGTS bi ñu ko defee ñu indil leen ko seen première réaction mooy jox Oumar Ba demande d'explication pour outrage parce que dafa bindoon direction bi lettre ne ko pour la reprise de négociations ndax dafa am benn xam ni bu dafa ñëw toog DRHC ne ko doo toog parce que adjoint moom mooy présider négociation te moom mooy secrétaire général titulaire ñu ne ko loolu mënul nekk ñu tas négociation bi bi ñu ñëwaatee beneen bi ñu ko defee ba pare ñu jox ko demande bu mu bindee direction pour euh, reprise bi ñu bind ko ñu ne outrage la def direction générale ñu ne ko c'est un secret il a le droit d'écrire pour demander la poursuite. bi ñu ko joxee la aussi ñu demandé ko ne restituer otoom oto contrat la bi mu ne leen oto bi mënu ko restituer otoom la parce que day déplacé wu ci liggéeyam ñu kii ko ñu mu jël ko ñu conseillé ko na dem euh, fële. inspection régionale mu def requête bi mu demee déposé ko mu indi requête bi xam naa mu metti leen ñu defal ko mise en demeure mu convoqué délégué de personnel yi pour def le bilan des négociation ak loolu direction générale ak par la l'entremise de la DRHT bàyyi ba mu des 24 heures le vendredi lañ ko waroon de mu bàyyi ba mercredi à 17 heures mu yónnee ko correspondance nekk li sa sa effectif yi dafa bëri dañ koy wàññi pou ñu mën a def te prise bi direction bi bàyyi na ko unilatéralement te c'est un acquis bi ñu defee loolu ñu ni comme mënatuñu def euh, euh, réunion bi fii parce que day xat suñuy délégué yu si ëpp boo leen gisee tey bëriwuñ fi ñoom ñëpp ñu ngi si région yi mënuñu leen woo en vingt quatre heures ci la ñu ne nañu dem def ko siège yu CSA ndax ñun foofu la ñu affilié affilié wu UTIS bi nekk UNSAS accompagné ñu léegi nag bu ñu leen bindee nekk di ñuy dem il fallait defaale conférence de presse si lañ ko jox convocation conseil de discipline ñu ne nag loolu trop c'est bon volonté yi def nañu médiation ci week bi ba sonn pour ñu retirer ko nangu ñu def retirer ko léegi nag ñu leen di xamal ni que intimidation boobu dafa doy parce que c'est un secretaire général de syndicat en plus délégué du personnel dafa war a jouer rôle am normalement te pour loolu on interpelle l'État du Sénégal parce que nag il faut que ñu xam ni que le personnel et actionnaire à la Sen'Eau à hauteur de 11 pour cent personnel Sen'Eau am na si 8 pour cent SONES am na si cinq pour cent ONAS am un si 1,5 pour cent te ñu suñu 8 pour cent c' est 960 millions depuis 2020 ñu ngi bëgg siéger élire nañu bee kenn mu dem retraite nanguwuñu mu toog élire nañ ko kenn deuxième ñu persécuté ko sax c' était un délégué du personnel bokk si ñu persécuté ko ba mu démissionné mu dem léegi ñu ngi demandé nañu def ay élection ba léegi nanguwuñ koo def lan la ñu mujj servir. benn protocole wala benn texte mayu leen pour ñuy organiser élection te alors que jot nañ koo def deux fois donc ñu ngi ñuy gàllankoor pour ñu mën a toog ci siège bi mën a xam lu ñuy liggéey foofu te actuellement ba période bi ma leen di wax en tout cas fin 2023 euh, pertu seen eau yi la était évalué à 17 milliards de francs CFA ren nag résultat officiel génnagul moo tax mënuma ci ko mais ay perte la leneen li ay perte moo tax mënuñu si wax te aussi ñuy wax vraiment état du Sénégal nañu dimbale suñu siège bi au niveau du conseil d' administration ñu jël ko. am na ay privé sénégalais yu am pour cent tamit ñu déterminer ñu xam ñooy ñan ñu jox leen parce que conseil d' administration ñaari ñoo fa toog siège moo fa toog ak euh, FONSIS FONSIS moo détenir yeneen paaru sénégalais mooy suñu 11 pour cent. vingt pour part vingt euh, pour cent wu partenaires privés yi ak vingt quatre pour cent état bi ñoom ñoo fa nekk te dans tout ça Sen'Eau moom la ñuy jox direction générale euh, kër gi donc xamuñu forme de désignation bi ñuy demee ndax si flou total la ñu nekk loolu bëgg nañ nag état du Sénégal vraiment mu leeral ko te ñun nag comme di ñu war dajale si ñu neuf cent soixante million te xam ngeen xaalis ni mu méttee si dëkk bi ak ak du ñu sonnee bu ñu mënee dajale ba bëgg ci bokk ba du ñoo bëgg société bi dox ñu am ci dara te loolu vraiment ba léegi ñu ñu gàllankoor donc point yi daal moo fi nekk chaque jour ñu ngi persécuter délégué du personnel yi en particule le secrétaire général Oumar Ba ici présent moo tax ñu ni ko tey bul wax ba xam naa ne bu waxee xol bu tàng lay waxee te mën na wax loo xam ne day déborder moo tax ñu ni ko tey da bàyyi wax